Eh, di nuyu suñu ustaz ustaz Mouhamed Lamine Diop di ko dalal di ko wax marhaban bik di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmmal ko làmmañam ba lépp lu mu fi wax mu tolloog njub gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon di ñaan suñu borom ñun itam lépp lu mu fi wax muy dëgg yàlla na yàlla tàggat ñu ñu mën koo jëfe yiwa yàlla nañ ko yàlla subhanahu wa taala bi fadlihi wa استاذ محمد لمن جوب مغي فاسيني وقتان اك نيون تاي تي موضوع بو امنا سولو لول ياكارو من كين مسنا في وقتان موضوع بو ابو سولو مي الشرك بالله اصوله وانواعه وطرق انتشاره بوكالي اك يالله سبحانه وتعالى تشانم اي خاجم اك يوني خامني مو موكاي تساره Euh, di wax ni Maodo la itam boo xam ni am na solo lool rawatina ci jamono bii ñuy wax ak yéen ndax ba ci njëkk mooy shirk su la neexee nga ni mooy li suñ boroom subhanahu wa gën a bañ ci yi tere boo doon xool alquranul karim fu ko yàlla tudd boo seetloo nam ciy waxee rek da xam ne li gën a bañ a ngi nii innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma lilzalimina min ansar waxin wa su ma ko firiwul rek ku ko dégg xam ni euh, kiy wax mu ngi wax loo xam ne lu mu bañ la wala boog fële innahu la inna inna allah la yaxfiru an yushraka bi yàlla neen du ma baal ku may bokkaale ak yeneen ak yeneen suñ bokk mi dina ci ñëw incha allahu taala mooy fan yii bu ngeen di faral di déglu di ngeen dégg ay façon cirque yoo xam ne ci suñu réew yàlla xam na ni yéefar yu njëkk yi sax ñi muñu ko woon wax ci wax ak jëf mu tas lool am ci sax yu jóge ci ay kilifa ñu ñuy tudde ay kilifa diine mbir mi su tolloo foofu jot na sëkk ñu waxtaane waat ko moo tax ñu ngi ñaanal yàlla subhanahu wa taala yiw wii ñu ko njëkk a yëkkati yal na yàlla fay leen yiw Maodo la bu am solo lool su ko defee ñu ngi dalal suñu sëriñ Oustaz Mouhamed Lamine Diop di ñaan ñëpp nañ ko déglu bu baax a baax yal na yàlla subhanahu wa taala def la ma ñu mu jaar ci dëgg yal yàlla def ñu tamit ñu daal di jariñu ci li muy wax bi fadlihi wa karami kon Oustaz xam naa ne bu nekkul di reer xam naa ne <laughs> na yëg ni mbokk yëpp moom la xaar moom la ñuy déglu incha allah taala oustaz kon sa mbokk oustaz Mouhamed Mame Goor Ndiaye mi ngi lay dalal di la wax marhaban bi incha allah yan yàlla sàmm la na yàlla dëgëral la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow Minhaju Sunna ñu ngi nuyu ñëpp xam naa ñu muñandiku tuuti rek oustaz muy ñëw incha allahu taala yéen a invité ab njóobeen ci heure reer di ngeen ko may tuuti rek mu égal reer. ابن خيال بارك الله فيكم واحسن اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بقي خمنتني ين يسير دني توب تجربي دي من السنة النبوية أجن جربي بقي خمنتني سني أجودنا فيج ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko yàlla nañu yàlla may al ixlaas fi l qawli wal amal bu ko defee comme ni ko mbokk mu baax mi waxee mooy oustaz Mouhammad Mame Goor ak tamit ki nga xamante ni mooy cheikh Abou Ishaq laata moom kon ab mbind buñ fi war a amal war koo jàngat mu jëm ci xadisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni mom lañuy as sab al al-mubiqat li ñëk moy mooy rafet lu ni mel lu am solo lool dañ koy encourager ndax rawati na jamono ji ñu toll nit ñi war nañu leena leeral diina yàlla subhanahu wa taala motax li di xam-xam ak occupé wu ci ak gëstu ko tassare ko loolu dafa bokku ci jihad fi sabilillah bal afdalu jihad waaw kon loolu faaw ñu bàyyi ko xel baa ko teewlu saa su nekk dinañu dimbali ba ñu gën a góorgóorlu ci li nga xamante ne mooy xam-xam ak sàkk ko tasaare ko ak di ko nemm jàngat subaa ngoon gu dégg ba ceeg mu jaral ñu lu ne bal daf lay jaral li nga xam mooy sacrifice day daf lay jaral bal daf lay jaral li nga xamante ne mooy aduna àdduna ndax xam-xam comme ni ko alimam ahmad waxee woon rahimahullah taala al ilmu la yaadiluhu shayun liman sahhat niyatuhu qila lahu kayfa ya Abdullah abdillah qala ida nawa saaxibuhu رفع الجهل عن نفسه وعن غيره الله أكبر كون إمام أحمد رحمه الله تعالى مني خم خم در يمتغموم خم خم در يمتغموم بل مو جن أم سورة لك نان تدوم آدم لتخ موي لك نان دن كوي سخلا لغا خمتي موي بين يون ولا نيار يون ولا بنيت يون تزور نبي waye xam xam dang koy soxla 24 heures sur 24 heures journée bi yépp da ngay soxla xam xam parce que lépp looy def rek war nga ci xam lan moo motax tax moy mooy al ilmu laa yaadiluhu shay'un xam-xam dara yamut ak mom tay lek sax balang ko def war nga xam lan moy tegginu lek ak boy lek lan ngay wax ak li dagana lek bo pare lan ngay wax niki non tamit nan niki non tamit nelaw li composé dundu doomu adam lépp dafa soxla li nga xamanteni moy mooy xam-xam moo tax xam-xam dara yamut ak mom waye nak ci kaw fekk sa yene sel fekk sa yene sel mom xam-xam ba dang koy sàkku te yàlla dong tax ak ngir jindi jami moy lolou moy li nga xamanteni moy wirasatu nubuwa parce que borom xam-xam ñoo doon ñi nga xamanteni ñoo yonent al ulama warasatul anbiya kon xam-xam dara yemut ak mom fekke nit ki selal na yéeneem yàlla nañu yàlla may al ikhlas fi l qawli wal amal ñi ko ya ba abdullah imam ahmad lol nak lay nekké moy nit ki bu fekke ni li tax muy sàkku xam-xam moy dafa bëgg yëkëti yëkkati réer ci kawam ak ci keneen ndax doomu adam li ci santi mom moy mooy réer جمادما لي جسانتي موي رير يالا من انه كان ظلوما جهولا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا غيسغا شيئا لا واخ نكر في سياق النفي تفيد العموم كون نكر لا بوخم دا فروت سي كونتكست بوخم داي داق لا تعلمون شيئا لب لا يوباله كون دا فا جينيرال كون دا بادما دا فا جودو خامول دارا كون بو فكيني مي جست خام خام di ko sàkk di ko nemmeeku ak jotaay yu mel nii nga xamante ne wax dëgg yàlla am solo lool lool dajale fi ay mbokk yoo xam ne ñu dimbalanteeg seen i mbokk seen diine eh, kenn ku nekk wax dëgg yàlla di participer selon li la yàlla wërsëgal loolu xéewal eh, gënu koo rëy bal sant yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala comme ni ko a bi sama waxee ci xadiisu eh, Muawiya sahih Buxaari Muslim man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi ddin كيف يال نمشي ورفلا يدق لو دينه فقه في الدين فما نمشي فقه بيني جانغ نتاي ما يجنا ياتلو لينش نم ما يخم دين يال تدك جف العلم بدين الله مع العمل به كنك ابن قيم لرجم مفتاح دار السعادة كن لين بقى وقت لي ننكو يفعل دباريل ما يوسارو نفهم فنك ده لي ما يلين خم تني ما طريق النبوة كن خم خم سكوك ينقطو تي اكبيو تي دو دفبوك تي جهاد في سبيل الله بل أفضل الجهاد مرة ابن القيم ليرال أجيان بروم خم خمي إن يننتي من لينا نط تلقى خمان تني مو جهاد السيف غزو أحد جلي نيجس نين لين دف غزو أحد ينتع سام بل لور دالون نكو تي أحد موتاخ يننتي من لينا نط جهاد السيف مي جهاد بيغا خمان تني مو خم خم كين دولين نط جامي موتاخ يال وجاهدهم به جهادا كبيرا كون جهاد بمك بمومو جهاد بي بالقرآن والسنة على فهم الصحابة جهاد بكندو كنوت يننتي بس كي يعلمو ننتي فك بل بوخولي لنغا خمانتني مو جهاد تجاسي لولو كوز للسبب له لتكون كلمة الله العليا ما جهاد بيغا خمانتني مو خم خم ak jëfeko ak wote jëmale ci muñ lor yi nga xam ñoo ci nekk comme ni ñu ci sourate jihaad boobu fardu ayn la ci kenn ku nekk ci kenn ku nekk bala nga de war nga wéral tawhid ci sa bop yàlla mu ni wala tamutunna illa wa antum illa wa antum muslimun moo jihad bobu kenn ci not yenenti alayhi alayhim bal bo xolé jihad bi nga xamanteni moy jihadu jasi ñi ëpp ci yenenti digalul digaluñ leen ko ñi ëpp ci yenenti digalul digaluñ leen ko bal ulul azm min ar rusul محمد ابراهيم موسى كلمه فنوح فعيسى هم أول العزم فعلمي نيات لين تيجيل أول العزم جهاد نيار تكين كي أي تبويونكو هو ينتهي على موسى عليه السلام دنيكو اذهب أنت وربك هم؟ اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون الله المستعان يعني ينتبع عليه السلام لنكو ديغل اي نيتو ويوكو تا ينسى ام امدم ينسى دو امدم مي جهاد بيغا خامتيني موي الجهاد بالكلمه كلمه الحق توحيد والسنه القران والسنه على فهم السلف الامه jihad bobu kon moy jihad bi nga xam kenn ku nekk ñun fardu ayn la parce que motax yàlla sak doom aadama wa maa xalaqtul jinna wal insa illa illa li yabudun ay illa li amruhum wa anhahum kum nako ko nabi ibn Abi Talib leeralee mooy nekk ci li yàlla hein bëgg bàyyi li mu tere li yàlla bëgg na dafa yaat way li ci gën moy tawhid motax Ibnu Abbas bi mu ñëwee di firi li nga xamanteni moy mooy bi dafa ni illa li yuwaxidun tekkiwul ni illa li yabudun illa li yuwahhidun lay tek mais déedéet mais loolu ñu tuddé tafsiru shay bi ba'd maani ak salaf dañ ca def lu bëree bëri bokk na ci loolu sax mooy xadis bii ñu nar a jàngat tey waaw Ibn Abbas bi li nga xamante ni mooy illaa li yaabudun dafa ne illaa li yuwaxidun nekk loolu lay tettre lay tettre déet mais loolu moo ëpp solo moo tax Ali ibn Abi Talib la mu ko tekkee loolu mooy liñ ci nam te mooy illaa li amurahum wa anhaahum nekk ci li yàlla digle bàyyi li mu tere digle dafa yaatu tawxid moo ci gën moo tax Ibn Abbas firee ko loolu waaye tere dafa yaatu shirk moo ci gën a garaaw wal iyaadu billah mi nga xam day màbbu jëf yonent bi yàlla mu ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna minal minal xaasirin kon wax dëgg yàlla lu mel dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla defal tawfiq defal ko mboole mbokk yi xadis bii nag nga xamante ni moom la ñuy jàngat tey ci li nga xamante ni mooy ci séminaire bi ñun ñu daal ñu ci cëral li nga xamante ni mooy tomb bu njëkk bi ci xadis bi te mooy ashirk حديث بي دي نانتي جار تي تنك ريك ريجيمي موي حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه الامام بخاري ومسلم جينيكو اك ليغا خامتيني موي يينين بروم خام خامي يانتي بي عليه الصلاه والسلام دي واخني اجتنبوا السبع الموبقات نين ماي تنديكو جوروم نياري الاغي اي المهلكات صحابي ñu xéron lañ ci seen diiné ak laaj te leen yonent bi alayhi salaam daan wax dañ ko daan def sami'na wa ata'na ñu ne ko yow bi lan mooy juróom-ñaari alage mu daal leen koy limal bokkaal yàlla subhaanahu wa jabar njabar rey bakkan boo xamante ne teguñu ko ci dëgg lekk riba lekk alalu njërim daa daw bisub guerre buñ nee ba nekk ci pénc ma ndax booba guerre day war bokk na ci xaalaat yi nga xamante ni xeex daf ciy war nekk faru ayn mooy boo demee ba ci saxaaba fa ñuy xeexee ba taseeg noonu foofu doo daw ak xarful muhsanat al mu'minat al ghafilat ak tumal way gëm ñu jigéen ñi di len tumal li nga xamanteni moy mooy ñi nga xamanteni len xam ci fek seen bop kon li moy li nga xamanteni moy mooy naari alage hadith bi nak len lañ ci sétlu moy yenen tibbi alayhi salaam dafa mel dafa ndar kep ittanibu as-sab'a al mubiqat mais la chaque ni waro xam leer lañ ko ni nek jublu waye moy nekul ni juróom-ñaari alage yi rek la déedéet yi alage bari na lool wa yenen tibbi alayhi salaam dafa bokkoon ci pédagogie buy jàngale day xool la ëpp solo mu daal koy leeral doomu aadama yi bokk na ci loolu par exemple bi mu ne alxajju arafa aj da buñ koy waxee wax dëgg yàlla arafa la xam nga aj ay ponk am na ñeenti ponk mais nam muñ ci ne am taxawaayu arafa ponk la ci ponk aj mais nam muñ ci moom dong moom mooy aj déedéet mais moo ci ëpp solo parce que bis la boo xamante ni yàlla day a ba malaakaam ci jaamam yi leen lan lañ bëgg lan moo tax ñëw fii tey malaaka yi ko bëgguñu lu dul nga jéggale yàlla ni faqad ghafartu lahum kon bis la boo xamante ne yàlla ci goreel jaam yu bëree bëri moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon ci pédagogie am muy buy jàngal noonu lay def moo tax mu ne alxajju arafa ndax moom mooy li ci ëpp solo ni ki noonu tamit as-sab'a al-mubiqaat yii nga xamante ne day alage yonent asaam nekkul lim ci jublu mooy ndar kepp bàkkaari alage bari na lool biddaa mi ngi ni moo dàq alage man amila amalan laysa alayhi na fa huwa rad doy na sëkk ngay jëf di sonn te duñ la fay bal ay bàkkaar nga ci am kon bàkkaar yi àllage nekk na yoo xamante ni yu yu bëree bari bëri la mais yonente bi sax ko tënk fii ngir jox li nga xamante ni moom moo ci moo ci ëpp solo kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la moo tax même li nga xam te ñuy bind ci wàllu pédagogie ci wàllu li nga xam mooy at taalim ah dañuy bind ci li nga xam mooy asali bu yonente bi alayhi salaam uslub bi mu daan utiliser ak méthode yi ci buy jàngale salawaatu rabbi wasalaam alayhi kon dañuy gis ne xadis bi xadis am solo la kon moo tax dañ ciy jariñoo ay mbir yu bari bi ci njëkk mooy saxaaba yi xër gi ñu xëroon ci li nga xamante ne mooy laaj lu leen di jariñ waaye yonente bi alayhi salaam laataa loolu xër gi mu xëroon ci leeral nit ñi li nga xamante ne mooy seen diine ak maytandiku lu leen li nga xamante daf leen di lor moo tax amul lenn loo xamante ni dafay jariñ doomu aadama loolu yonente bi alayhi salaam leeral na ko amul lenn loo xam daf koy lor لودل ينتي بالليل لك بندك ما يتندك صلوات ربي وسلام عليه مرة جنوا أدنى لودل ليل الله لينا خم تني مودينا يالك قد بلغ الأمانة قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين kon yonente asam fi day wane ni xergum gum ci leeral doomu aadama yi seen diine waaye tamit saxaaba yi xër guñu xëroon ci laaj leen di jëriñ waaye tamit dinañ jégge ci xadis tamit ni bàkkaar yi ko negete ñaari façon la am na bàkkaar yoo xam yu mag la am na bàkkaar yoo xamante ni yu ndaw la bal bàkkaar yu mag yi sax dañoo ama dañoo wante ay dëgëre la waaye nag ya ca gën a mag bàkkaar ba ci gën a mag alal itlaq mooy ashirku billahi moo tax yonente asam fii moom la jiital loolu tamit lu lu jar a bàyyi xel la ni ki noonu tamit dañuy jëriñoo ci xaddis bi ni li nga xamante ne bakkaar yonent bi tudd tey dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la te tey tasaaroo ci société bi bakkaar yi ñu fi yëpp tey lu dul li nga xamante ni moom mooy at tawalli yawmu zahf te mooy daw ci bu nga xamante ni dem nañ ba ci pencum guerre ma parce que guerre mu guerre moo amatul jihaad ci yoonu yàlla moo amatul al-ghazwa mais bakkaar yi fi gis yëpp yi tey dafa nekk yoo xamante ni euh, lu tasaarool tey ci mu nekk nag lu doy waar bokkaale yàlla moom waxi nopp dem nañ sax ba jàpp diine la njabar waxi nopp dañuy dem ba tey ba ci concurrence ci télévision yi rey bakkan suba ngoon gu dégg ba ci kilo xam du dëgg lekk riba waxi nopp lekk alalu njëriñ waxi nopp tuumaal doomu aadama yi waxi nopp wala iyaadu billah bàkkaar yëpp yonte wax wax dëgg yàlla mu nekk lu tasaaroo ci société yi ak société yëpp tamit kon loolu dafa jër a tiit ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu sàmm ñu aar ñu sàmmal ñu suñu diine waaye defal ñu tawfiq ba roy sunna saydina muhammad alayhi salam maam yoon bi nga xamanteni mom la ci jaaroon kon loolu lañ bëggoon leral ci li nga xamanteni moy teunk bi ci hadith bi doog ñu nak ci li nga xamanteni moy faram fatte kon li nga xamanteni mo ci jitu ci hadith bi te ñu cëralee ñu ko tay mom moy ashirku billahi moy bokkale yàlla yàlla nañ ci yàlla musal kon la shak werante amul ni li jitu ci waxtaan moy faawu ñu xamle lan moy shirk waxu boroom xam-xam yi boo top ci li nga xamanteni mom moy xamle li bokale dafa bari lol lol lol lol te seeni ibarat wute sen phrase ni utiliser wute lol ci xamle li nga xamanteni moy bokale lako waral nak dafa nek lo xamanteni lu am solo la parce que bakkar la bo xamanteni ki ci dé safar lay sax ba faaw yàlla ci yàlla musal doyna secret gravité am loolu yàlla du ko jéggale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بل ينتبه عليه الصلاة والسلام إمام الأولياء والمتقين والموحدين يا لدينا كلين أشركت يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بابوك قالون يا لدينا ينتبه سي جف دي ماب كو جف ماب فم جم سفر ويا كو كونفير من كو نغي بوك سيني بيرت لوتر بدو خم بنيه دي كو خملي سيني تيري مام كو نيك فاسم بكو خملي يوسا دي تخو nan est-ce amul contradiction ci li nga xamanteni moy ki wax lay ki wax lay may dedet yeen say nak kenn ku nekk ci nang koy xamle ki da koy xamle yeen say xamle ko ci tawhid al uluhiyya par exemple Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala bo xole buy xamle tawhid danaan ifradullah bil ibada kon daf ko xamle ci tawhid al uluhiyya may lan moko waral mu xamle ko ci tawhid al ibada parce que jamono bokale bo mo tasaro won mo do xamle ko ci al asma wa sifat xamle ko ci li nga xam tawhid ar rububiyya دون داكي گم توحيد الوحيه الالوهيه من باب اولى لي فرض يالا مو گم توحيد الربوبيه مي بو خولي بروخام جيتون با دانكا كي لي گنون انسيستير تي توحيد الاسماء والصفات باسكو كوري لي خا مانتيني نيام لا السلف خام لا نون واخ تي وال لي الصفات من الجهميه يوني مل لي نيبغا واخ ريك موي تيري بروخام خام بوكاي تيامبار دا باري لي خا مانتيني اي يو خام لا باري باري باري تي شرك مي تي تنك ريك ca lañ ko xamle mooy na ko yàlla waxee ci alquran tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawikum bi rabbil alamin doy na sax parce que waxtaan dañu bëgg mu nekk pratique mais bëgg ñu nekk mu nekk ay théorie kii wax na le kii wax na le kii ne la ko xamle kee ne la ko xamle déedéet loolu amul solo li am solo mooy ñu jël loo xamante ne lu tënku la mu mën a nekk ak yóbbal kenn ku nekk mën cee teg baaraam borom bi subhanahu wa taala mu ne tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawikum bi rabbil alamin daanaka sax jarul ñuy dugg ci te ak taarifu luxawi langue arabe ni la gisee déet mais nañ indi pratique kon ci aaya bi mën nañ ci jëlee li nga xamante ne mooy xamle shirk idnu sawikum bi rabbil alamin kon bokkaalekat yi ëllëg dañuy war di rëcc di reconnaître ni ñoom dañoo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy lan moom mooy réeru ak sànk gu metti lu tax ñu ni iz nusawwikum bi rabbil alamin parce que dañoo jëloon ay mbindeef di leen yemaleeg ku dul yàlla subhana taala moo tax ci aaya bi mën nga cee seppee xamle bokkaale nga ni taswiyatu gayrillahi billahi fi cheyin min xasaisillah taswiyatu gayrillahi billahi fi cheyin min xasaisillah yemaleeg yàlla ak lu dul yàlla lu dul yàlla nga yemale ko yàlla ci loo xamante ni borom bi subhanahu wa taala moo ko lan moo ko jagoo dafa bokk ci ay particularitéem loolu mooy bokkaale kon képp ku yemale ku dul yàlla yemale ko yàlla ci loo xamante ni yàlla moo ko jagoo loolu kon tàbbi nga ci bokkaale ak ci façon bu mënti doon nag loolu tënk na lépp kon loolu mooy xam xamle li nga xamante ni moom mooy moom mooy bokkaale mu bëri nag ay façon yoo xamante ni nit ñi ngi koy def mais charia daf koo jàppee li nga xamante ni moom mooy la mooy bokkaale bokkaale tey bi gën a tasaaroo duñ ci bàyyi xel mooy shirkul mahabba shirku al mahabba mooy bëgg ay mindeef ba yamal leen yàlla amaana sax yow doo ko yëg bal li ñu gis tey mooy am na ñoo xamante ay mindeef yëkkati nañ leen ba ji kaw palaasu yàlla waaye dañuy nax seen bopp yàlla subhana taala mu ne wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaadan yuxibunahum ka ka xubbillah waaye nag walladina amanu ashaddu xubban lillah ñu gëm yàlla moom yàlla mooy fees dell seen xool lu ñu ko yemaleeg dara parce que bëgg yàlla nit ki sa ngëm du nekk lu ñu ko tuddee ngëm yàlla ba yàlla ngay bëgg jiital ko ci lépp yonente bi alayhi salaam dooga ñëw waaye gis na ay nit yoo xamante ne tey dañoo bëgg ay nit ay mindeef ñu raw nañu bëggee yàlla wala yaadu billah boo leen ko waxee ñu la dee ñu yàlla ñu jàmmee ñi nangam ak nangam mais nañu xool lan mooy bëgg boobu xamante ne daf leen yóbbee ci bokkaale Adi ibn hatim mo ñukay leral parce que ñu bari jàpp nañu bu né bokal rek moy nga dem wa deug yàlla di jaam ay xërëm wala naa nga déedéet bokkaale gën na yaatu mo dafa nekk lu sew parce que yàlla mo ni ala lahu al khalq wal amr yàlla moy ki bind waye itam moo moom digal defal bàyyi lolu yàlla ko boko defale ko nit rek tàbbi nga ci bokal yàlla subhanahu wa taala moo tax Adi ibn hatim bi mu ñewé ci yonente bi alayhi assalam fekk yonente bi jàng ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ay boko boo rek wax deug yàlla boko ko deug da ngay comprendre lu bari tay li am ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا ilahan wahidan sur tawba adi bin hatim bim ñëwé entu alayhi salam di jang ayé bi fekk mi ngi tekkon ab croix yent ni ko tek ko sanni li nga xamanté moy xërëm bi ci sa los mu sanni ko taw yent alayhi salam bim jang ayé bi mu ni ko ya rasulullah ñun de ñun wax dëgg yàlla jaamuñu leen ittaxadu ahbaarum aaya bi li muy tekki mooy ñoom yahud yeeg chrétiens yi dañoo jàppee seen kàngam yeeg hmm, seen jaamukatu yàlla ay yàlla walis ku dul borom bi subhaanahu wa taala addi bi xaat ko ñun jaamuñ ko te tey lu bari ci doomu aadama loolu la ñuy wax yéen bàyyi leen nit ki ngeen di jaamu topp leen yàlla ñu ñun de jaamuñ ko yàlla la ñuy jaamu mais kii nangam nangam déglu yonent bi iskaal bi nga xam tontu na ko addi bi xaat ko ñun inna lasna naabuduhum ñun jaamuñ leen de yonent bi ni ko alaysa yuharrimuuna ma ahalla allah fa tuharrimuunahu wa yuxilluuna ma xarama allah fa tuxilluuna mu ni ko bala yonent bi ni ko fa tilka ibadatuhum fa tilka ibadatuhum foofu teg ci point kon nekkete alaa lahul xalq wal bi yàlla waxoon nekkete yàlla mooy ki bind waaye tamit moom moom digal def leen bàyyi leen kon képp koo xam daf lay daganal lu yàlla araamal nga ànd ak moom ci loolu wala mu lay araamal lu yàlla daganal nga ànd ak moom ci loolu boobaa xamal ne yow loolu moom mooy jaam koy jaam akbar te tey lii moo tasaaroo ñun ci suñu ci suñu réew ay nit ñoo xamante ni yàlla daf leen di digal ñu bañ bu leen nit digalee ñu def ay nit yoo xamante ni borom bi subhanahu taala daf leen di araamal leen nit daganal leen ñu def ko safaan bi tamit c'est la même chose yàlla mu ni fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun kon loolu mooy shirk tey bi tasaaroo ci suñu société bal ay doom aadama dem nañ sax ba yëkkati ay nit te ko palaasu yàlla loolu dara gënu koo nekk li nga xamante mooy intikaasul fitra li nga xamante ni yéefaru màkk yi sax wax yàlla euh, xalaatuñ ko woon yal na yàlla musal ci fitna ak li nga xamante ni mooy réer dinañ ci ñëw asbaab yi yóbbee tey nit ñi ñu tàbbi ci mel ni bokk na ci gën a yéem moom mooy li nga xamante ni mooy réer. kon loolu mooy xamle bi nga xamante ni moom la ñuy xamle bokkaale ci tënk rek na ko kenn ku nekk ci ñun mokkal di ko bàyyi xel bu baax a baax mooy taswiyatu gayrillahi billahi fi cheyin min xasaisillah jël lu dul yàlla ak lu mënti doon nag. lu mënti doon jinn la malaaka la nit la lu mu mënti doon asamaan la li nga xamante ne mooy weer la ay biddéew la lu mu mënti doon tasweetu xayrillaahi rek dafa matale lépp moo tax xamle bi ko borom bi xamle bu mucc ayib la subhanahu wa taala parce que mooy ki am xam-xam bu mat sëkk ak xikma mat sëkk dàq wax ñëpp gën a wax ñëpp gën a rafet wax ñëpp gën a dëggu ñëpp man asdaqu min allah qiila waaw kon mo gëna degg ñëpp subhanahu wa taala gëna xam ñëpp ni mi waxé kon bu waxé lamu wax dëgg la taswiyatu ghayrillahi billahi fi shay'in min khasa'isillah jëllu yàlla yamale ko yàlla ci lo xamanteni borom moko jégo loolu moy li nga xamanteni moy lan moy bokkaale yàlla muy تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وخات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون kon li bëgg wax lool moy xamle li nga xamanteni moy bokalé bokalé bobu nak comme niñ ko xamé dafa nekk lo xamanteni lu ñaaw la parce que dafa wuté ak li tax li nga xamanteni ni moo yalla mo ñaalé ak doom adam te moy al fitra yàlla mu ne fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrata allahi allati fatara an-nas alayha kon yàlla nekk te limu mo ñaalé ak doom adam moy ak mbax kon nga la way bu ko soppi la tabdil li xalqillah كنول كو صوب يونتي عليه الصلاه والسلام من كل مولود يولد على الفطره بحديث جيخ فابواه يهوداني او ينصران او يمجساني كون كيب كو جود داغا جود سي مباخ اك كو مانتي دون نا واي سي نياري واجو نيو لا مانا ديفي يالا نتي الله مسلم كون لولو موي خاملي بوكالي bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni ci tënk rek topp li nga xamante ni mooy tembi comme niñ ko tërale bañ a xaabaabal lu dul yenn saay rek ñu junj ay mbir fekk buñ gisee am na solo mooy usulu shirk li nga xamante ni moom mooy cosaani bokkaale day dellu ci ñaar ndax bu leen fàtte ni euh, lii di bokkaale bakkaar bu ñaaw la tax mu nekk bakkaar bu ñaaw Ibnu Abbas comme ni ñu ko informé mooy diggante maam Adama alayhi salaam loolu daf lay wan ni tey ñu bari ci duaat yi wallahi dañuy bu ma dañuy tappale wala dañoo mel ni ku xamul lan mooy dëgg dëgg dëgg bokkaale dayo bi mu am ak tawxid importance bu am ba tax ñu nekk ci yeneen yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, da nga yéemu boo déglu histoire bi ma lay wax di xam ni kon nekkati mbir mi l'heure est grave comme ni ñu koy waxee mbir mi jéggi na day naam da nga war a yittewoo yee askan wi ci yenn yu am solo mais te gis nañ yenn doxaat yoo xamante ni seen yitte yëpp wala politique la kese di wax ak nit ñi nan la ñu war suñu réew dugg na fii ne jàppale candidat bi mel ni ñoom loolu moo tax yàlla subhaanahu wa sàkk doomu aadama te loolu laa chaque ne njuumteel ak ku ko mënti def yonent bi alayhi salaam li mu wax dafa leer naññ naññ naññ naññ nit ñi nañ leen woo ci tawxiid ak sunna ci dégginu saxaaba yi nit ñi nañ jàngal seen loolu moo yàlla subhaanahu wa taala leen mën nga dund ba dee yàlla gërëm la doo nekk président mën nga dund ba dee yàlla gërëm la te doo nekk ministre mën nga dund ba day yàlla gërëmtaloo nekk maire wala nangam ak nangam nit ñi nañ leen xamal li tax yàlla sàkk leen lii mooy amaana ku deful li rek da ngaa wor wa maa xalaqtul wal insa illa li yaabudun nañu xamal nit ñi seen diine bàyyi tappaleek caaxaani ak fobi faaw ñu waxante dëgg de faaw ñu waxante dëgg nit ñi nañ leen jàngal tawxiid ak sunna jàngal ko sa njaboot yow sa bopp man mii dama war di nemmi ko tawxiid bu nekk di ko gëstu parce que di gëstu ay masailam ndax moy li nga xamanteni teranga doom adama ci la nek aduna ak al-akhirah bal la ilaha illallah bat bob kep ku de te wéeraloog sa bopp yow sànku nga motax yàlla waxoni wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de mukk lu dul da ngeen a sen seen yàlla subhanahu wa taala al islam moy al istislam lillah bit-tawhid wal inqiyad lahu bit taa wal baraatu min ash-shirk wa ahli motax ku xam lolu xam-xam rawatina xam-xamu tawhid parce que xam-xam ni ngeenante ci lam aju al ilmu شرف العلم بشرف المعلوم كلام أجو تيني خمين خم خم بيجي لجنة تخم خم التوحيد دف أجو تبرم سبحانه وتعالى مخم توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات كن فاو نجور جولوات جنة نمك واد لين خموي ألوهي جنة أما ديترميناسيون جور جول ريال يوم بدل نجوك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سولنا وإن الله لمع المحسنين بس كي جور جولو am sellal di top alquran sunna kok la shakka aji rafetal ta yàlla mi ànd ak mom yàlla mu koy defal tawfiq defal ko tayid wa nasr kon nañu xamal nit ñi tawhid bàyyi ci xande ak tapale nek ci yeen yo xamanteni wax deug yàlla ay mbirum àdduna wala ay politique kon histoire ibn abbas bi nga xamanteni netal nako di nga xamé ni ko nekete leur est grave moy digënté mom adam alayhi salam ak digënté bi yàlla yónni nuh alayhi salam amna junni am na dix siècle dix siècle mooy junni at la ilaha illallah dix siècle yàlla yónniwul yonent ci li nga xamante ne mooy diggante moom aadama alayhi ak diggante nuux moom aadama ak diggante yonent yàlla nuux am na dix siècle mooy junni at te pourtant foofu lu bon amoon na fa diggante boobu lu bon amoon na fa xam ngeen rey amoon na fa te rey bakkan dafa bokk ci bakkaar yu mag yi ñu tudd ci xadis bi قابل هابل رأنتني لا شك أني كم نكبر خم لير الأمن يعني وخم تين أمانة أم فتي مبنتة دون تزح أمانة يو خم نيكو بس كيال سمعت نون لم مونيا لك لين خم تين ما يدون دم بند أجنة بند سفرة أم يوار دم سفر أم يوار دم أجنة كون نيغا خامتاني نيو وادم اجينا يالا ديفال لين توفيق تي مباخم جيفنتي نيوم تي نجيك ترانغ اك غنيلم ني ديف لو باخ ني وادم سفر تام ديف سفان waaye lenn mooy li amul woon mooy bokkaale moo tax yàlla subhaana taala yónniwul woon yonent ci dix siècle yooyu junni at benn at sax dafa bëri ñaar ba ñett wax la téeméer at téeméerat téeméer at at junni at yàlla yónniwul yonent kañ la yónni yonent bi bokkaale tàbbee kon loolu loo ciy déggee mbokk yi kon nekkete ndax nit ki war na toogati nan day yittewoo lenn lu dul li nga xamante mooy diine yàlla ci diine yàlla bi ñu koy waxee dafa yaatu mooy al awamir wan nawaahi waaye la ci ëpp solo ci digle yi mooy tawxid la ci ëpp solo ci tere mooy bokkaale kon dañuy woon ñu ci diine yàlla waaye jiital li nga xamante mooy pas-pas te moytandiku loon ñi li nga xam mooy bokkaale lii boo ko déggee yaakaar naa ni di nga xam njuumte ñenn ñi nga xamante ne tey ñoo taxaw di yittewoo li nga xam mooy wàllu ak yéen yoo xamante ni daanaka amul bopp amul génn ba cee sonal nit ñi loolu ay tappale la loolu wor diine yàlla bi subhaanahu wa taala parce que jullit wala borom xam warta nëbb li nga xamante ni mooy dëgg ndax yàlla subhaanahu wa taala loolu tëkkoo woon ñi nga xamante ni ñooy juif yi إن الذي يكتم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كون بوكو نتي نيب دغ ورا ليرال نيت توحيد ودغ يال ورا ليرال نيت بوكالاي تا تاي متسارو السنغال ني فانغ بال لا نيو ديم با ديف كو ليغا موي فينومين اك ليغا خامتاني موي كونكورانس بيس بو نيك اي فيديو يك سنوب ني واخ لو خامتاني توكيل ادونا di bokkaale yàlla suba ngoon gu dégg ba cëg ka an na chay'alam yakun doo dégg sax mel ni dara amut ñun ñëpp ñu noppi te buñ duggee ci wàllu politique wala dañuy jàpp candidat nangam wala nangam na ñu bëgg a tukkil àdduna sa kaw ko xam ne nday woote woo ci alxuraan ak sunna kon kooku war xool waat ba alxuraan ak lay woote woo waaye du bi yonent bi a salaam doon jàngale saxaaba yi dund yàlla gërëm leen ñu leen al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al mbokk yi li nga xamante ni mooy cosaan yi bokkaale borom bi subhaana wa taala mën nga koo tënk ci ñaar bi ñu njëkk mooy bokkaale kon bi nga xamante ni amoon na ci jamono nuux alayhi salaam te mooy bokkaale bi njëkk a tabbi ci kaw suuf diggante moom aadama alayhi salaam ak diggante yonent yàlla nuux foofu mat na dix siècle yàlla yóniwul yonent waye kagn la yónni yent yàlla nuh bi nga xamanteni ni bokkaale ci kaw suuf la yaadu billah ci yàlla wax ci wax ni wa qaalu laa tadarunna alihatakum la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaxuusa wa ya'uqa wa nasra waaw moo ibn abbas mun kana bayna adam wa nuh 10 qurun kulluhum ala alislam ñom ñëpp dañu nekkon ci li nga xamanteni moy ci tawhid fofu lañ ci déggee tamit mbir bu am solo moy nekete tawhid moy cause bi nga xamanteni buñ ko defoon réaliser ko ci kaw suuf ak yéen moy yàlla lu am am am tamit wax deug yàlla yàlla daf defal li nga xamanteni moy ndimbal motax yàlla loolu la wax muni wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihat loolu bokku na ci jeexante lu tawhid wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihat la yastaxlifannahum fi l ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشأن الله أكبر دوما أرام ينسى بوي مام تخاو دي سيرلو اك سين سيتياسيون داغا نان خانا ني دانيو خامول ايات يي ولا نكو جانغ با داغا نكو جيفي ولا لان مو خيو لان لان لا سوليسيون بروم سبحانه وتعالى جوني نكو ليرنا تاي لي ني كير كير ييب بغ سيكورتي ادنا بغ سيكورتي الاخره بغ الله يالا فال ني توفيق بغ ام دوندو ناتانغي مي يالا ليرال نانكو اك مو يوم مي سونو لوخو ني سونو لا ديس moy nañu wétal yàlla bàyyi bokalé doyna sëkk buñ ko défon léegi ñam na tànge ya abuduna ni la yushrikuuna bi shay'in même bu féké yéen mooy yàlla am nañ naam même bu féké yéen mooy yàlla am nañ moo tax diggante moom alayhi salam ak Nuux amna 10 siècle 10 qurun ñom ñëpp dañoo nekkon ci l'islam liñ nam ci l'islam moy lan moy at tawhid wala tamutunna illa wa antum muslimun bul ni kenn watta dee lu dul da nga réaliser la ilaha illallah nek julit julit moy lan moy al istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta' wal baraatu min ash shirk wa ahli moy nga jebal sa bop yàlla moo bo deggi ay nit na lay jebalu ci ay nit lolu wax deug yàlla dar ko dar gënu ko nek njombe ci yàlla ñuy jebalu nit nak mën nañ ko top ci fek mi ngi top lo xamanteni top ko ci limi def am duñ ko top mo ci bopam mais yoon bi nga xamanteni fa lay jaar yoon boobu dañuy topp mais moom day nekk li nga xamante ne mooy koo xamante ne ku ñu guidé al murshid di ñu guidé ci li nga xamante ne moom mooy ci diine ji di ñu tegtal lu baax moo tax moom nekk moom la ñuy topp waaye la mu woote te mooy alxuraan sunna loolu la ñuy topp mais moom dafa nekk li nga xamante ne mooy sabab parce que al ulama warasatul anbiya moo tax yonent bi moo xam ne yàlla subhaanahu wa taala ne atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum waxul wa atiu ulil amr moo tax boo xam leeral foofu ne borom bi lan moo tax bamtuwul bobu بابا allah wa واطيعوا rasul wa atiiu ulul amr dedet wa ulul amr rek la wax moy nekk te doom aadama dañ koy top ci li wote fek fekk mi ngi dëppoog li yàlla bëgg akub yonentam attaat at-ta'at fil ma'ruf kon jébbalu borom bi lañ koy defal moy wala tamutuna illa wa antum muslimun kon al islam moy al lillah bit tawhid wal inqiyaadu lahu ta'a wal baraatu min ash-shirk wa ahli jébbal sa bop yàlla diko ko wommatul wommatul ko mooy nga nekk ci ay ndigam ay ndigalam bàyyi ay tereem jébbal sa bopp yàlla mooy li yàlla bëgg amuto ci choix li yonente bi alayhi salaam bëgg amatoo ci choix wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara amoo ci tànneef loolu mooy jébbal sa bopp bàyyi sa bopp yàlla li yàlla bëgg ci yow nga def parce que yow jaamam nga te jaam watta génn ci li nga xamante sangam daf koo bëgg allahu mawlaana subhanahu wa taala kon loolu mooy wala tamutunna illa wa antum muslimun kon ibnu abbas muni ni adam alayhi salam nuh nuux ñëpp dañoo nekkon ci l'islam kulluhum ala l'islam amono 10 siècle ba bokkaale tabbi ci li nga xamanteni moy lan moy nitu yent yàlla nuh kon loolu moy al aslu awal cosaan bu njëkk bi ci li nga xamanteni moy mooy ci nim tabbe muy ay nit ñoo xamni ñu baax lañu won waddan ak suwa ak yaghuf ak yawuq ak nasr kon ibnu abbas waxe ñi juróom lañu won ñoo xamni ñu baax lañ bi ñu demee ba génn àdduna seytaane dafa yéeme xam nga seytaane kon ni ko Ibnu Qayyim waxee bu la bëggee tàbbiloo ci lu bon du ñëw rek ñu la lii lu bon la donc accepté waaw tilqaa yéen da nga koy rejeté automatiquement mais daf lay ubbil bunt yu baax di la dugal ci bii di la jaarale ci bii di la dugal ci bii di la jaarale ci bii ubbil la quatre vingt parce que dafay jël temps ubbil la quatre vingt dix bunt yu baax ngay dugg fii di génn fii ba ci centième ba mu tàbbi la ci lu bon te noonu leen def wallahu almustaan moo tax ku deful ndànk motax shubha dafa nek lu doy war ku deful dank rek di nga tàbbi ci lo xamante do xam Ibn Abbas kon nim ko leerlee mu ñi ni nii ay nit lañ woon ñoo xam ay tur nit ñu baax lañ woon kon ci nitu yent yàlla nuh moy waddan ak suwa wad ak suwa ak yaxuus ak yaq ak nasr ta bo xolé sen situation daanaka dafa melni tay moy répété wu allahu akbar dafa melni tay moy répété wu ana ñaata nit tey gis ñu génn àdduna ñu defar seen bàmmeel wala def seen i foto def ko nit ñi dem di ko ziyaare ji di ko raay jàpp ni barke la bal di ko takk def ko ay njël ak lu ne ay lu ne wallahu mustaan ne xam lay wax mooy bokkaale bi ci tabbi ci ko suuf mooy aslu shirk ñu baax lañu ci nit yent yàlla ba génn àdduna seytaane ñëw seeni nit seytaane ñëw seen nit ni leen ah feeñu leen ñi leen ah ñii ñu baax lañu woon kon nag gis nga nga suba bi fi mu ñii ñu baax la ñu woon fa la commencé ñu baax la <laughs> ñu woon laa chaque xam bu ñëwoon def leen ko ci ñu bon dañ naan ko dégg xamuñu li mun ne ñii ñu baax la ñu woon ngir ngeen bañ leen a fàtte nag pour ngeen defee ngeen mën a roy ci ñoom mooy dañ leen di defal li nga xamante ne mooy ay estati sampal leen yett ay li nga xam ne estati wala tabax ay estati taswir ay estati ni kii mooy wadd tuddee ko wadd tuddee kii suwaab tuddee kii yaxuut tuddee kii yaxuuq tuddee kii nasr bu ko defee saa leen xoolee rek ngeen mën a fàttaliku ñi ñu baax ñi bu ko defee ngeen mën a xéer def ay jaamu yàlla ñu ah lii de lu rafet la gis-gis gën koo rafet ñu def loolu seytaane yàkkamtiwul mi ngi leen di xaar ci génération yu ñëw ñoom ñu defoon loolu xamoon nañ ni ñooñu kenn war leen a jaamu waaye falamma nusixa al ilma ay nusixa al ilma bi ñu demee nag ba nga xamante ne génération bi dem nañ ñu fàtte xam-xam beneen génération ñëw jàpp ni ñii nga xam dañ leen sampoon te mooy wadd ak suwaa ak yaxuus ak yawuq nas dañ leen war a jaam ñu commencé di leen jaamu foofu la bokkaale njëkk a tabbee ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala ci la yónnee nuux xool seytaane fi mu jaar ak ñoom te mooy répété wu da ngay dem ci yenn yoo xamante ne da nga fekk ay photo yu ngand ay photo ñu taf ko nit ñi saa ñëwee di ko raay xale yi saa ko raay mu dem ba aju seen xol ñu mujj di jaamu ñooñu teg leen sax foo xamante ni duñ fa teg yàlla sax ñooñu lañ xam xamuñu yàlla ci loolu lañuy ñuy màgg di waat ci ñoom ni ñoom ñooy seen yaakaar àdduna ak nangam ak nangam yal nañ yàlla musal ci li nga xamante ne mooy moom mooy réer kon fii da gis ni akbar cause ak sabab cause bi gën a rëy mooy ñi tàbboon ci bokkaale mooy réer parce que dañu ñëw xamuñu lan moo waraloon ñu ñu def loolu doon sax loolu daganut parce que moyen la boo xam ne charia daf koy xaraamal donte daganul ci cosaan waaye du nek lo xamanteni lu ma sa dagan la motax sharia aramal ko at tasawir yonente ba alayhi ci wax leer ashadu na ashaddu yawm al qiyam al musawirun ñi gëna tar mbugal yawm al qiyam moy ñi nga xamanteni photo fotokat yi la bo xamna wuti na photo yi daf ci dugg wala ci dugg jamono ji lolu benen masala la ala kulli hal kon bokkaale bi moy ciosan aslu shirk bi njëkk a tabbi ci banu adam yàlla nañ ci yàlla musal